Euh, Bassirou Samb adjoint maire de la commune de Grand-Yoff en charge de la jeunesse et de la vie associative euh, par ailleurs point focal du programme coaching territorial dans la commune. waa xam nga coaching territorial bu ñu defee historique bi mbir la moo xam ni mi ngi xalifa Sall mi ngi ko jëlee woon président Khalifa bi mu nekkee maire fële ca Maroc ci sommet Africité ba bi mu ñëwee Sénégal fii ci Dakar amoon na ñaari ville mooy Dakar ak ak ak Kaolack mais ci Dakar ñu tànnoon ñetti commune muy muy euh, commune de Hann Bel-Air commune de Dieuppeul ak commune de Grand Yoff pour ñu mën ko fi expérimenté expérimente ci tënk coaching territorial mbir la moo xam ne dafay faciliter autorité bi mu mën a jël ay décision doonatul mbir moo xam ne dañuy tëju rek ci suñu ay mairie suñu ay bureau mais dañuy tàggat ay ndaw ñoo xam ne ñooy dem ci quartier yi dem ci gox-goxaan yi waxtaan ak askan wi saytu seen ay jafe-jafe mën ko remonter au niveau des des du décideur maanaam tollatuñ jamono boo xam ni dañuy décider ci kaw yóbbu ci suuf mais ci suuf la jëlee pour mën a décidé ci kaw donc ñu commencé woon ko zone de captage waxtaane woon question citoyenneté tey fii ci lew na ñu doon waxtaane mbirum euh, gestion des déchets mbalit mi naka lañ ko mën a utiliser waat suba war nañu dem bi ci cité mi di waxtaane mbirum fiscalité ak civisme donc mu doon mbir mu am solo moo xam ne autorité bu ko comprendre rek dina la mën a aider pour que say décision boo koy jëlati mu nekk décision yoo xam ne dina am maximum de consensus waaw lew na dañ doon waxtaane li ñu économie circulaire maanaam li ci gën a am solo moo doon mbalit mi nga xam ni tey dañ ko doon uti dañ koy dañ koy génn ci kër yi naka lañ ko mën a utiliser ba delloowaat ko ci askan yi déjà li ci ëpp solo mooy dina ñi ciy liggéey ay ndaw la yoo xam ne dañuy am emploi di ci gagné lu ñu yóbbu seen kër mais nga gis aujourd'hui ay aménagement yoo xam ne mi ngi commencé am ci dëkk bi nit ñi bu ñu jëlee lu mel ni plastique di ko utiliser waat jël lu mel ni ay pneu yi jël lu mel ni bouteille di ci defar ay banc di ci defar ay décoration pour wane ni ëllëg Euh, fii ñu jëm économie circulaire am na avenir bu am solo mbalit doonatul mbalit rek dañuy wax ordure la maanaam war nañ ko mën di utiliser waat di ci liggéeyaat donte amaguñ moyens yi nga xam ni pays yi développé yi moom lañ ko transformer ko mais avec les moyens de bord avec nos artisans avec nos jeunes war nañ ci mën a commencer def nag recyclage et di ci woo état bi di ci woo collectivité bi ñu gën ci jàpp parce que bokk na ci li nga xam ne mën nañu dimbali ba ndaw ñi am ci lu ñu jàpp. xanaa di gërëmaat bu baax a baax euh, le maire Khalifa Babacar Sall bi nga xam ne moo taxoon code territorial ñëw ci Dakar. ba ñu tànnoon ci Grand Yoff euh, madame monsieur le maire Barthélémy Dias ville xam ni programme axe 1 gouvernance participative la waaye surtout le maire de Grand Yoff xam ni bi projet bi ñëwee daf ñu wóolu woon def ñu ci point focal mais am ci yaakaar te jàpp naa ni tey fii ñu toll dans l' espace de décision de Grand Yoff y' a beaucoup plus d' implication des populations ci li nga xam ne mooy décision yi ñuy jël. Euh, asalaamaaleykum maa ngi tudd Ndeye Rama Diagne agent la ville de Dakar et de Dakar. waa euh, d'abord dañuy remercier ñi fi teew ñëpp ndax ñëpp xam nañ ni jot amul ak euh, situation bi nu mu demee euh, te di dellu aussi di leen jaar ci dëj bi ñu am teewul ñëw nañu présenté wu waa kontante lañ ci jëlee kontante parce que nga woote ñu wuy si la yombul beneen bi mooy que ni dem ci quartier boo xamante ni maîtriser woo ko nga dem fa fexe ba xam ko ba maîtriser liggéey ba maîtriser seeni problème ba maîtriser acteurs yi nga xamante ni ñoom ñoo fa dëkk ba mën a créer liggéey boo xamante ni moo mën a jur lii muy euh, concertation bi ñu def ni pour fexe ba acteur yi ak euh, njiit yi mën a am jàkkaarloo tête nga xamante ni problème su amaan ñoom du ñu am fuñ ko jooytoo wala du ñu am ku leen ko jottalil tey ñun fexe nañu fexe nañu ba euh, waa mairie bi ak dëkk ñi nga xam ne ñoo dëkk lew na mën a toog ba mën a waxtaan ba problème yi juddu fa ba ay solution am si ba ay engagement am si kon mënuñu def lu dul am ci mbégte rek. waa comme ñun comme ni ma ko waxee waa ville dakaar Dakar la ñu dafa am ñu ñuy yónni ñu ñuy ngemb pour ñu dem defar leen liggéey boobu liggéey bii nag waa Proplast la waa inda ak waa éco communication belge nga xam ne ñoom ñoo tax ñu tàggat ay coach fii ci Sénégal am na Kaolack am na dakaar léegi suñu liggéey mooy que ni dem ci communes yi. di jàng jàng li nga xamante ni problème yooyu moom la communes yi di dund def diagnostic yow mi fa dem yow yaay jël sa téléphone di photo yow yaay jël sa carnet di note problème yi nga xamante ni moo fa am mais n'empêche ni da ngay noter la fa baax muy point négatif yi mooy li nga xamante ni jot nañ ko fa defar pour askan wi li nga xam ne askan wi jot na ko fa defar boppam loo xam ne dafa leen di jural lu baax ëllëg tey ñun bi ñu notee problème yëpp dañu delluwaat def porte à waxtaan ak acteurs yi poser leen ay problème yi euh, poser leen ay questions yi nga xamante ni dañuy sukkandiku ci ay questionnaire poser questionnaire yi dafay dafay jublu ci question ci liggéey bi ñuy def parce que ñoom gestion déchet bi lañ fa jël tey mën nañu dem beneen quartier liggéey ci beneen problème léegi bi ñu defee loolu dañu gis acteurs yi waxtaan ak ñoom soo gisee acteur ba pare dalay jox contact beneen acteur soo paree nga dem seetiwaat njiit yi ñëw ci mairie bi waxtaan ak ñoom fexe ba coalition boobu collaboration bi nga bëgg nga am ko pour liggéey bi mën a am suivi. Euh, li ñu fa njëkk a noté mooy que ni bu ñu nee déchet dañu njëkk a dem bi ñu defee diagnostic mooy que ni foo tourné di nga gis ñu sànni fa butéel di nga gis ñi sànni fa sachet di nga gis ñu sànni fa ay dàll mbalit maanaam problème salubrité mi ngi fa. beneen bi dañu remarqué ne am na problème inondation ak problème eaux usées ndax o usées yi ndax bu nawet amee ndoxu taw bi ak ndoxu foos si dafay jaxasoo ci mbedd yi doo am sax foo jaar. beneen bi ñu remarqué mooy que ni dafa am bouchon ci ci ci canaux yi ak ci canal yi tellement que bu nawet amee loolu tamit cause inondation la euh, liñ ci remarqué aussi mooy que ni ñàkk xam parce que manque de sensibilisation dafa am à tel point que booy wax ak population bi sax du ñu xam utilité déchet parce que fii boo nee mbalit sax dañ lay ñàkkal fayda parce que ñi ciy liggéey loolu la ñuy dund kenn jox leen ci ndax dañ naan ci mbalit dañuy liggéey or que léegi mbalit bi nit mën na ci liggéey gagné ci vie am yor ci ay njabootam def ci leneen ak leneen parce que ay nit a ngi fii def ba pare am ci réussite total donc nit ñi dañoo bëgg suñu objectif mooy que ni nit ñi am beneen gis-gis ci mbalit bi jël mbalit bi def ko muy métier ñu wan leen pour pourquoi on parle de déchets pourquoi parler de déchets et économie circulaire léegi loolu bu ñu ci tàggatee ndaw yi pour man moment bi ñu toll comme liggéey amatul tous les places sont dañuy tàggat ndaw yi ci loolu pour ñu xam yoon bi ñuy jaar ba njëriñ bi ñuy wax ci mbalit bi ñoom ñu mun ci jëriñoo tamit. Euh, je suis monsieur Vincent Gomis chef de service dialogue citoyen et accueil aux usagers de la ville de Dakar. Oui, euh, l'expérience de la ville de Dakar en matière euh, de coaching territorial, euh, il y a d'abord une convention entre la ville de Dakar, Éco-Communication et le, la région de l'Orientale du Maroc via CGLU Afrique. Et c'est comme ça qu'on a connu la démarche coaching territoriale. Moi-même, je reviens de Kisumu, euh, du Kenya, où j'ai eu le, pla le, plaisir de rencontrer les responsables des communications, M. Delvaux et autres. Donc euh, l'expérience de la ville de Dakar, elle est, elle est, elle est immense hein, euh, en termes de en termes d'accompagnement sur le coaching territorial. Nous avons expérimenté, nous avons, nous avions à l'époque pris trois communes. Euh, Euh, dans lesquels nous avons expérimenté le coaching territorial, à savoir avec des projets différents. Hein, sur euh, Anne Belair, c'était sur le quai de pêche. Euh, sur euh, Diopol Castor, c'était relativement à la problématique du marché. Et ici à Grand Yoff, relativement euh, au projet d'aménagement paysager du bassin de rétention. Ensuite, sur euh, les questions de civisme fiscal. Et aujourd'hui, sur la question des ordures dans le quartier Léonin. Euh, donc je peux, je, je dire que vraiment c'est une expérience très riche euh, qui nous a beaucoup apporté, puisqu'il s'agit d'une démarche qui, qui, inclut, qui met au cœur de, de, toute politique les populations. Et je pense que le rôle même de, de nos institutions municipales, c'est vraiment de satisfaire, de tout faire pour que les populations soient au cœur de toutes les politiques qui sont menées. Parce que si la solution vient des populations, il est évident que euh, il est évident qu'on que nos actions seront seront plus portées vers vers des résultats. Oui, oui, oui, il y a un suivi, il y a un suivi. On est on est là dans la phase évaluation puisqu'il s'agissait de faire euh, des des phases tests dans dans ces trois communes-là. L'exemple de Grand Yoff, vraiment, je pense que nous a valu beaucoup de satisfaction et que nous allons continuer dans les autres quartiers évidemment de de la commune et l'étendre aux 19 communes puisque je le rappelle la ville de Dakar a une compétence sur 19 euh, communes du département de Dakar. Il est, il est, il est immense, il est immense. Ne nous y trompons pas. Aujourd'hui, pour, euh, pour, pour, être efficace et efficient, il faut vraiment impliquer les, les populations. Et c'est ce que nous permet la démarche coaching territoriale. Elle nous permet d'être plus, plus près de nos populations. aussi un dialogue permanent, une communication et, et véritablement Il comme ça qu'on pourra être efficace dans nos actions. D'abord pour les enjeux de développement, je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce qui a trait au, au réchauffement climatique, aux problèmes que nous connaissons d'inondation et tout, je pense que l'économie circulaire, on ne peut rien déconnecter d'abord de l'économie. Tout est connecté à l'économie. Et je pense que c'est voilà, euh, euh, le monde d'aujourd'hui demande à ce qu'on qu réinvente euh, un peu autour de l'économie circulaire, autour de l'économie sociale et solidaire. Je pense que voilà, il n'y a que comme ça qu'on pourra être efficace. Encore une fois, je le répète, l'économie circulaire aujourd'hui est indéniablement, il faut, il faut aller vers ça, indéniablement. Je pense que nos politiques euh, en sont conscients. L'actuel maire de Dakar, Barthélémy Diaz, en est conscient et tout son programme est tourné, est, est tourné vers cela. Euh, je pense que les, les, les difficultés, euh, c'est d'abord une appropriation de la part des populations. Je pense qu'il y a un, un, léger problème de communication qu'on qu va bien, qu'on va, je pense, régler avec plus de communication. Je pense que s'il y a un problème d'appropriation de la part des, des populations, vous savez, on a une population un peu particulière, il faut, il faut plus sensibiliser, il faut, il faut plus communiquer. Je pense que globalement, c'est ça. si les populations comprennent la nécessité et l'apport que véritablement l'économie circulaire pourra leur, leur rapporter, je pense qu'elles euh, seront plus enclines à, à, à, à se tourner vers cela.